أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه من الله نيرانجن أن يظهر من فين نفي ما اعتقد دق لنا خمن فصنكو دينا لا حنسى day tëgteeñu billaahi ci yàlla faqat dong fii ma àqada ci fas laxul yamin mooy mukallaf bi nga xam ni jullit la jàpp dara ci xolam mu wër ko ne lii la wala mu njort ko njort gu dëgër mu daal gëñ lekk lam gëñoon du noonu ne mu gëñ ne wallaahi ka ma gis ci mars ba diw ndeke kam gis ci marché ba du du diw loolu laxul yamin la laxul yamin nag bu ko defee dana laaxin sa nar nekkut ci kenn du ko kafaarloo su fekkee dafa gën ci yàlla amaa bu gënee ci fase wala goreel ah, même bu fekkee lam jàppoon noonu la bu dul noonu dafay fase dafay gore bu ne kama gis démb zeyd la ah kam gis nag moom wóor na ku ne zeyd la loolu la jàpp ndeke du zeyd du kafaara amul benn bakkar dégg nga su fekkee ne daf ko at ci fase wala gore te du zeyd fase na bu dee foo xam ne bu du zeyd sama jaam gore na gore na parce que fase gore kenn du ko caaxaane waaye laxu yemi nag wax nañ ne su fekkee ci xaal la ci lu teew foofu kafaara amu fa mustaqbal moom bu dee la kafaara day am dégg nga déedéet sax wutee nañ ci sax nu ñu ne kafaara du am bu dee laxul xamuus la xamuus mooy boo xam na ko day nar dañ ci ñëw wala waxoon nañ ko si dars bi perse waaye nag laxul yamin mooy mu lam gëñ moom wóor na ko nii la bu dee ci xaal la ci jamono bu teew daf naan kii may gis nii wóor na ma ne la te du Zeyd foofu mm, dégg nga euh, du kafaara moom it su dee lu paase lii du kafaara bu dee ci luy ñëw nag la gëñ laxu jamin su boobaa dafay dafay kafaara kon laxu yamin ak xamuus yépp bu dee si mustaqbala luy ñëw moom moom bu dee waxul dëgg dafay kafaar bu dee ci lu teew laxul yamin du ci kafaar waaye mustaqbal nag wutee na dana kafaar kii kon laxul xamus ci lu teew dana la kafaaram du kafaar fa laxu neenal nga ñu mooy mu feeñ naf yu ma taqada dàq lam jàppoon <coughs> ay fa yaminu laxu ngañ goo xam ne neen la ان يعرف من مكج المكلف مكلف المسلم كي جلد على شيء تمبير بو خامن يعتقد ذلك فاس او يظن ولا من يرت كظن ان يرت قويا بو دغر فيظهر مفين خلاف ما اعتقده وتكلم فاس او ظن ولا من يرت nga fas dara wala nga ñort ko ñok ñort bu deugar nga ne wallahi kama gis dem zeyd la te fek du zeyd waye lool nga gem la xul yemin la do kafara bu doon it naan wallaay ki may gis ni Zeydi la te du Zeydi doo kafaara kon laxul yamin bu dee ci maadi la wala ci lu teew kafaara du fa du am dégg bu dee ci mustaqbal nag nga ne wallaay ka ma war gis suba Zeydi lay doon di la loolu nga jàppoo it bu ñëwee du Zeydi it ah, maanaam gan nga ñu war a am suba nga gëñ na Zeydi la loolu nga jàpp mu ñëw du Zeydi dangay kafaara parce que affaire suba waroo si wax dara kon mustaqbal amul laxu yemin maadi moom kenn du ci kafaara benn ngeen safar parce que maadi benn la nga wax di dëgg wallaay ka ma gis démb mu nangam la mën naa muy dëgg bu dee dëgg la kay doo kafaara wala boog muy mu wóor na la ngay nar waxoo dëgg kooku yeminu xamus la kenn du kafaara ci maadi wala boog mu wóoroon ne noonu la tëdd noonu foofu laxu yemin la kon maa di amul kafaar xaal nag ci lu teew bu dee laxu yemin la doo kafaara bu dee nga nga ñëm xamuus la goo xam ne wóor na ko ne dafay nar dafay kafaara ci lu teew mustaqbal nag moo xam yemin la am xamuus la dafay kafaara laa yamta billaahi faqat fi ma qada mooy falaa yamta déet ak teeñu ala yi di ko war bi charte an yaxlafa sartaay mu gëñ billaahi ci yàlla faqat dong laa bi talaaxe waxuma ci fase wala ngi taaxim du caagin gore mais daa kaana bu nekkee kazaale comme noonu fala kafara déet wala isma déet bàkkaar yi di ko war li ànd yamino ndax nga ñëm nga laxu neen la bu fekkee dafa gëñ ne ki mu gis démb wala ki muy gis nii nangam la tadu moom du kafaara amul bàkkaar ndax ngañ gi laxu la luñ neenal la ndax loolu la gëmoon moom ay xeeru munaqidatin fasuwut laxu mooy lu fasuwut misaalu zaalika misaal loolu an yaxlifa mooy mu gëñ billaahi ci yàlla ne laqad laqee dajee na ak zaydan zaydu bil am si démb gis na ko kazaalika comme noonu wa kaanata nekk lu ko xóor waxta alfi waxtu su ma tabayeen topp mu leer baana zaalik gannaaw loolu andoo ne moom laqee dajee na ak zaydan zayd xabla am si njëkk démb du démb bi yomin ci bis hmm? ah aw tabee na wala mu leer ana nekk ki nga xam ne ra aw gis na ko xëyra zéerin du zéeri ba li fi nekk mu maasan dafa niroog loo ñeel ko fi shakli ci melokaan wala xëy ak mm, mm, mm, eh, defin mook zéeri niroo defin niroo melokaan rek waaye du moom xam nga dëgg waaye du ko faara ndax moom dafa jàppoon ne zéeri la wala xalafa bëgg ñu xalaat seen ci dara min zaalik ci loolu bi talaaqin ci fase aw intaaqin wala gore lazimu kon mu war ko atalaaqu fase wala intaaq ak gore li annahuma ndax ñoom ñaar laa lax wa déet neenal ngëñ fiyaa di fii maa di nekk si ñoom ñaar bu gëñoo ne ki ma gis démb Zeyd la bu dul sama jabar fase na bu dul Zeyd rek jabaram fase na bu fekkee kam gis du démb ko gis waaye barki démb la ko gis jabaram dafay fase waxu dëgg naka ci jaamu yi kalaam yi mooy maanaa waxam billaahi ci yàlla faqat donc fii maa xar ci ram fas maanaam kenn du ko narloo di ko kafaarloo bu gënee ci yàlla waaye nag bu ko ajee bu ci ajee fase wala goreel ah bu dul dëgg dafay jàmbaree gore jabar ji day ci yaru isa nawaa nam yéene na xàllal yemini fekk ga bin nasaqi te toppalante ko ca maanaam sësale ko ci bu fekkee dafa gën ci yàlla istisna it ñu leeral rek teel leeral rek ne moom it gën ci yàlla ci la am njëriñ bu gëñoon ne sama jabar bu defee nangam fase na incha allah incha allah gi jëriñu ko ci dara bu koy jabar yi def fase def ci am maa bu gëñoon ne billaay danaa def nangam nag wax incha allah incha allah googu dana ko jëriñ. dégg nga ci sartaab mu wax incha allah gannaaw bu ci sartaab it allah gi jokk ci ngëñ ma ak mu tudd ko ci làmmañ di leen nank la ko wax mu jublu si setti ngëñ ma waaye nag bu fekkee dafa wax incha allah ngir barkeelu rek wala da ko miin baaxut incha allah kooku du ko jariñ dara danaa def nangam incha allah moom la gëñ. waaye incha allah gi da ko wax parce miin rek wala dafay barkeelu jubluwul ci wane ne bu soobee yàlla nag laa wax kooku bu defee loolu dafay kafaara mais nag bu dee lam ta jublu mooy bu soobee yàlla nag laa ci namm ah, su boobaa bu defee lam bu deful lam waxoon dañ moom lay wax ne wa misloo comme noonu la istisna set wala na taqadira tudd na ko siran ci yelu maanaaw maanaa ba النون اللي أنبام مثلية من اللغويكم نينا نجلة في عدم الهنسيس نياك تانيو وعدم لزوم الكفارة نياك ورق كفارة استثناء ست لغو اليمين نار أموتي كفارة أموتي جن جن ستيت نونو استثناء ست بإن شاء الله وسي إن شاء الله فإنونك مو مسكتنا أجرات الله للكفارة الكفارة والاسم بكار لكن وانك bi shurutin ci sarta salaasata yee ñett ashaara juñ na naazim waykat bi ilayha jëm ci ñetti sart yooyu bi qawli ci waxam isa nawaa na mi na xalal yamin fecc ngañ ma bi nasaqi ci te toppalante ko ci dégg dégg maanaam eh, yaani lu mas na mu anal xaalifa naka aji gëñ bi ci yàlla isa stasna bu fi yamini ci ngañam bi insha allahu ci incha allah nem soom na yàlla fenn yeminu nag nga jëm gi mun xallatun aji fecceeku la faataltu mu du ko war kafaaratun kafaara wala ismu jaagan bakkaar su ma ne du ma def nangam incha allah wala danaa def nangam incha allah su ma ko defee war a ma ko defit benn kafaara waru ci ndax incha allah lañ wax kafaara waru ci bakkaar waru ci idaa lam yafal bu defut almaxluufa lañ gëñaar yi moom bi sarti si sartaab an yaqula mu waa insha allahu baada yamini gannaaw nga jëm waan yesira ak mu jokk al istisnaaw sett gi bii ci ngañ ki insha allahu gi dafa jokkaloo ngañ ki waan yantiq ak mu tudd bi lisaani ci làmmañam na ko tudd ci làmmañam walaw sirran dont nànk la ko wax waaye xaasidan na jublu bi daalika ci loolu xàllal yamini fecc ngañ ki laa in jara waxu mu daw daalika lu ala qalbi ci xolam فلان فون دوكو جارين درام بو فكي إن شاء الله شو قلم رجل كوخ نا بو سوبا يالنا كواي شو قلم لكو ييني ولو من جارين فون متو دوكو وكو تودي نانكت باحنا إذا قال بو خلو نيوك أحد ممكن إحلف جنيل بالله تيالا لتأتين ننا دنگ نو ديكل يوم سبت بيزو سمد مثلا تي مثال فقال له مدال ديكو هنكو والله ما نجن سيالا لا أتي دنا ديكل يوم سبت بيزو سمد إن شاء الله ننسوم نيرا تعالى كمانا wa qasada mu jublu bi zaalika ci loolu xalla yemini yi fecc ngeñam laa yax na su kooku du teeñu illam yaati nam dikkalul ko aslan ci cosaan aw ataa wara mu dikkal ko yow mu ahad bisu samedi bisu dimanche sax bisu samedi la waxoon waaye dimanche la ñëw duñ ne ko kafaara parce que ba mu gëñee def na incha bu ñëwut it du kafaara لعدم الانعقاد غير ناك فاسو غن بك ما علمتكم نيغا خامي غن بلا فاسو بك فا دي سي وار فيك بروم بوخو ان شاء الله تا نيكول لاغو اليمين نيكول اليمين الغموس فانك يويو تي غن تي يالا لا ام سولو واي با غن تي فاسي ولا غورل وما ان لم يقصد بجبلو بقوله تخم ان شاء الله ان شاء الله حل يمينه فتي غنمه ba li fi nekk xaaloo wax na ko tabarukan ngir barkeelu aw min xeyri xasdin wala jubluwu ci dara sax aw xasada wala mu jublu bii suma mu wax la ni min fekk ngeen mi sax waaye nekk na al istisnaaw mun fasilan di aji fasale di teqali kooku an yemin ci ngëñ mi dafa gën kooku yàgg door a wax insha allah xam nga diggante bi jokkoowu te dafa nekk bi na saqi lu toppalante bilaa daruratin ci lu dul lor كالنفس نيك نوعي أو سعال ولا سقط قحة سقط وفيك أنا دفع سقر مم درني كوتش جنجك سقر ولا متسول دار وإن شاء الله درني كوتش أو من تقول ولا تدل بلسانه سلا من ولو سرا دون تنبول سوفيك دال وحنا إن شاء الله وجبلو تفتي نجمه wala boog wax na incha allah jublu na ci fecc ngëñ ma waaye ngëñ mi ak incha gi jokkoo wuñ te taxut bu dee nag wala nooy moo tax dafa wax dafa gëñ rek sa kër door a wax dara nekku si waaye bu dee benn ngànt taxul nag mu toog tuuti door ba si kanam door a wax wala sax moom incha allah gi wax na ko waaye tuddul ko ci làmmañam ci xolam rek la ko wax. kon tam mu ne aw la menteq wala tuddul ko bi saani ci làmmañam wala si ren la yooyu yëpp fenn yeminu nag nga ñëm nga mun a xaqi aji fasu la bu defut mu gëñoon dana kafaara. وyaxnasu dana kafaara in lam yafal lam defut al maxluufu lañ gëñ xale ci moom dana teeñu kon way talzamu dana ko war al kafaaratu kafaara wa yaxnasu dana teeñu lay firi wa hada li maanaa qawli mooy maanaa waxam idaa nawaa bu yéenee xalal yamin fecc ngañ nga bi nasaqi ci toppalante ay bi suruti si sart al murattaba yuñ toppalante fi nazmi ci way wi yooyu yëpp sart yooyu daal mooy tax mooy tax nu mu tuddati ngañ mi bañ fasu walam xamal an nag kafaara nekk kafaara wala istisna ak sett bi incha allah ci incha allah wa naxwo ak yu mel noonu xaasaani ñaari way jagoo lañ bi yéemee ci ngeen billaay ci yàlla kama taqadama comme nu mu jiitoo kafaara ak sett ci gën ci yàlla la mën a am gëñ ne wallaay danaa def nangam wala du ma def nangam waaye bu ne wallaay su ma defu nangam sama jabar fase na incha allah amul fa njariñ bu waxee incha allah ak bu ko waxul noo ci yam su ko def rek jabaram fase na te it bu ko defee du kafaara jabaramee fase rek foofu amul kafaara wa dégg nga goree noonu la mel wallaay su ma defee nangam suma jaam gore na su ko defee jaamam gore na même bu waxee incha allah rawatina ko waxut te foofu it kafaara amul fa jaamam rek kay gore dégg su ko defee nag boo xoolee mm, bëm sarxa bi sart yi mu indi si istisna incha allah balaa am njëriñ nu euh, ci toppalante gi da ko si sart yi nga xam ni maanaam incha allah gi balaa jëriñ sart ko firee ci saraxa bi man hmm? nag dama ko firee incha gi sës ci ngëñ mi parce que loolu gisuma ko ci yax bi te ci sart yi la bokk foo nga seeti wax na seeti gi mooy yow incha allah foo nga tudd ko loolu wax na ko ngi yéen si fecc ngëñ gi loolu wax na ko waaye moo ngëñ gi ñu sosoloo ñu sosoloo koy bi na moo ko gënoon a mën gën a niru foofu hmm? te loolu si sart la bokk moo tax bi na saxi foo fireeku loolu mooy gën a yàlla <coughs> allahu alam fa idaa bu waxee li abdi ñeel jaamam fa iza kallamta boo waxee zaydan zaydu fa ante xurun gor nga incha allah nem soom na yàlla <laughs> jaam bi bi wax zaydu di nekk gor incha allah amul ci njëriñ su ma topp jaam bi wax zaydu xatta ko gore naa raam du jaam ba incha allah amul wala yéen foofu du ko jëlee sis naaw setti ga aw xaar wala mu wax <coughs> li zawjati ñeel jabaram iza daxalta boo duggee daara furaanin kër diw fa ante yow taarixun kuñ fase nga incha allah nem soom na yàlla mu wax jabaram ne ko boo duggee kër diw fase nga incha allah incha allah nga si benn njariñ fa daxalaha mu dugg ko talaqat fase woon zawjatu jabar ja bi mu jarati du xuuleha ci rafleg du gim dugg kër diw du ko jëriñ buy jabar ji dugg kër diw daal fase na amul dañ naan na kafaara mu toog yooyu kafaara amul fa fase rek moo foor daa <coughs> ngi dégg li mu مسألة لي أب مسألة لا إذا قدم بجيت لي أحد كان طعاما نم أو شرابا ولا نان قدم ما مجوح لك رك كقهوة نكي كافي أو لبن ولا صو لأحد نيال كان آخر كنن كان بجوح كنن نم مخم نم بكافي لا ولا لما دون وقال موح لو نيال كم كجون كل كلا يشرب ولا نانل وقال موح الآخر كنن كلا آكل دوما لك ولا أشرب دوما نانل fa qaala moom maaliku taami ki moom ñam wi jox ko keneen awi sharaabi wala ku moom naan wi ne alayya war na ma atalaaku fase aw alayya wala war na ma xaraamun sama jabar xaraam ma illaa ma akkaltu lu may nga lekk aw sharibtu wala nga naan ah, yow yaa jox ko benn na ko lekkal mu ne ah, man damaa si misaal loolu lekk wala daal du ma lekk wala daal yu noonu daal bañ na daal nga ne ko soo lekkul ñam yi sama jabar fase na wala soo lekkul ñam yi sama jabar xaraam na waqaalam wal aaxar keneen moom mu ne alayhi war na ko atalaaqu fase aw alayhi war na ko alxaraamu jabaram xaraam laa yakul du lekk wala yasab du naan moom it mu ne la su ma ko lekkee rek sama jabar fase na wala su ma ko lekkee sama jabar xaraam na léegi kan moo ci fase dégg moom maanaam bunt bi da ko jàngal waaye bunt bi aw daxu min chamsi duha moo gën a leer jënt bi yor yor jërutoon dugal fii ndax boo xoolee kaw waxul dëgg rek mooy kafaara ka waxul dëgg kon moom lay jabaram di fase teg na ko da nga lekk boo lekku sama jabar fas na mooy mu ne bu ma lekkee sama jabar fas loolu kay amutut luñ ci yeete di ko di ko ber parce que ñaar yëpp kay leer na ku bu lekkee jabaram fase parce que moo waxee ne bu le bu lekkee jabaram fase bu lekkul nag yow mi borom ñam yi sa jabaree fase rek hmm? <coughs> nee na xukki ma dañuy àtte ku moom ñam wa wa sharaab ak naan wa birixin ci ci teeñu wala di moom waru ko atalaaku fase bi xel fi alaamaa yamliku ci gën gim gën ci lu moomut woo moom asaxsu mooy beneen jëmm al moom tane bu bañ benn waaye bañ na ne du lekk nga ne ko force danga lekk boo lekku sama jabar fase ah yow yaay fasale waaye ci sarta moom mu bañ lekk wala yaxna su waaye du teeñu al moom tane ko bañ ma ne ak ci lekk aw shurbi wala naan loolu moom leer na wala ko mu duñu àtte xale si moom bi talaaqin ci fas moom mu a lekk bañ a naan kenn du ko ne waxoo dëgg kaay fase sa jabar <coughs> laa noonu nag moom moom woo naf su mooy boppam moom dafa gëñ ne moom lekk mooy illaa mu lekk aw yashrab wala mu naan ne du lekk ba pare su ma lekkee sama jabar fas na dem lekk naan fa yox ko ma dana yaate ali ci moom mi lekk bi talaaka ci fase isan jamono jooju wees la moom mucc maaliku taami ka moom ñam ba aw sha aw isra bi wala naan su ko defee <clears throat> moom mi waxoon ne du lekk bu lekkee jabaram fas na moom bu lekkee wala mu naan moom moom moom lay jabaram di fas léegi masala mi lan la wuteeg li ngeen jotoon jàngale dara lu leer la léegi mooy ku wax dara aj si fase dëgguwul rek sa jabar fase ba léegi loolu moo nekkaat fi <clears throat> xëy na dafa bëri la muy am seen dëkk moo tax mu jàngale ko mu ngi mel ne yow mu doon jàngale am masala ba masala mi leer nañ waaye nga jël ci benn masala moo xam ne li muy xew ci dëkk bi dafa dafa bari lool nga joxoñ ko baaraam pour mu gën a leer ñi koy def ñëpp ñu xam ne lii mooy àtte ba loolu rek moo tax mu jàngale ko moo tax la boo xam ne yéen bëri dana yàlla alintinaaw sonne ci moom li waquyaa ngir gi muy tàbbi kasiran lu bëri benn amati ci diggante nit ñi loolu moo tax leeral ko ne <coughs> mais fii ñun li muy tàbbi ci ñun bëriwul <coughs> amal xamuus waaye nga ñëw xamuus achakku mooy sikk aw xasdul kasib wala jublu nar <coughs> ko kii xam naa ne moom bëri na caaxaan loo xam ne daf si sikk rek mu gën ci yàlla ñeme na de loolu mooy xamuus parce que dafay nuur boromam ci safara <clears throat> wala boog loo xam ne moom wóor na ko dëgg nga wax rek mu gëñ ko gëñ ci te wóor na ko dëgg loolu mooy nga nekk xamuus kenn du ci kafaara waaye nag moom waxoon naa la si sarta mu bañ a nekk xaal walla mus taqbal nga nekk xamuus su fekkee dafay gis ne wallaay kii muy gis ni diw la dafay kafaara bu gëñee ne wallaay suba ki war a ñëw diw la te wóor du diw dafay kafaara dégg amma bu dee ci maadi la lu paase moom du kafaara kon nga ñëw xamuus ci maadi rek la am ci gàttal daal lii ma wax nii daal loolu mooy takk-takk bi nga ñëw bu fekkee laxu yemin la bi ñu jàngale léegi mooy loo xam ne nga jàppoon noonu la bu dee maadi doo kafaara bu dee xaal jamono bu teew nga gëñ ne diw la te fekk ndekk du waaye loolu nga jàpp doo kafaara xamuus nag moom bu dee maadi doo kafaara mais bu dee ci lu teew la da nga kafaara teewul am nañu ne bu dee lu teew la doo kafaara mais bu dee mustaqbal da ngay kafaara nga déggee ci ne maadi ittifaax la dëppoo lañ ne maadi moom xamuus ak laxu yépp kafaara amut ci mustaqbal laxu kafaara amul ci mais xamuus am na xilaaf wute ñu ne da nga kafaara ñu ne doo kafaara moom la dafa mel si ñuy kafaara la bokk amaa mustaqbal nag ittifaaq am na ci ci laxu ak xamuus yëpp da ngay kafaara def ko defee su ko defee noonu la nag baamu naa ko ay yoon loolu mu baamu nag mooy kii dégg amal xamuus yaa ngi mislu mu annal yaminul xamuus na yaminul xamuus التي ما يخم لا تفيد دجارين فيها تموم كفارة كفارة كلمة الله وكم نجل الله ورك بين الله غموس لك الشك ميسك أو قصد الكذب ولا جبل النار أي مم أن يعرف ما يمكن أحد كان شاكا داجسك في وصول شيء إن شاء مقدرة أو متعمل ولا ميجي تيار كذب النار موقع تاي دال دجن وسميت رونيكو غموسا لأنه أنها نغمم دينغا تخمسو دفع نور الصاحب عبر في نار جهنم سفر جهنم دكوي نور الجنة مثال ذلك مثال أن يعرف مهم أحد كان بالله يتيالا أنه أنا مملقي لينك زيدا زيد يوم الخميس بسبب الخميس قوتو مشاكون دبيتك في لقاء نحن ينعم ممدت أو في اليوم يولد ينعم ممشي دين ولا بود ميسك سي بس بي دين ميسك ساكن سي بان بس لا أو نعم مثله تضرب شي زيك زاك ولا ممكن زي يضرب تلف زيك زاك زي يضرب مديت ولا دينا مديت نعم كم اللي ممكن ليركو ولا بوك أو متحقق ولا مهوركو أنه نعم رأى وجسنكو يوم أربعة بيسو ألا الرب باري ممكن بيسو القي مثله جس ko xam nga ne wóor na ko ne lu mu wax du dëgg wala mu xam ne ki mu gis keneen la mu gëj na zeyd la wantaq la mu toxlu ila alxamis ne alxamis la falaa tufiidu da ko jëlee al kafaaratu kafaara kooku du kafaara waaye dafay dafay jégalu yàlla kama xaala kon waxee falaatu kafaar duñ ko kafaara wa maxalu zaalika barabu loolu nag yeminu yeminul xamuus balaa ñu koo ñàkk kafaara mooy intaan laqat bu ajoo yeminu ngëñam bi maadin ci lu passé mel ne zaman si jamono kama fi haazal misaal comme ci misaal mi bu dee dafa aju ci lu passé comme noonu ñu ko waxee wa kaana mu nekk yeminu ngëñam fi yome jumaati si bisu ajuma waaw maa in taalaqa waaye bu ajoo bil xaali ci lu teew lu teew mu gën ci loo xam ne du dëgg nee na dafay kafaara waaye nag am na wutee awil istiqbaal wala luy ñëw su boobaa dafay kafaara lu teew daal bu dee laxu du kafaara bu dee xamuus dafay dafay kafaara mustaqbal nag laxu xamuus yëpp kafaara daf ci am yéen a xam lu mu wax misal an yaalifa ni mu gën bi laa yàlla andoon ne moom yecta moo dana dajoog bi zeydi zeydi fi tilka saati ci boobu la heure mu gëñ ne heure bii mook zeydi ñoo nekk te wóor doo ko nekkut ak zeydi aw fi ma baada wala ci gannaaw heure boobu mu ne wala mu gëñ ne fii ci kanam mook zeydi daneen te wóor na ko duñ dajee wala def ci sikk moo tax woo mu ta fekk moom saakun aji sikk la aji sikk la fii daalika ci dajee googu aw mu taxaqun wala xóor na ko àndoon ne moom laa yegtemoo du dajeeg bii ci Zayd aslan ci cosaan mu gëñ ko ci lu teewoon lu ñëw fay naa nag moom tukkafiru lii la nekk mu taamil nda aju tey alkasi ba nar li taaluqa ngir aju gim aju bil xaalis ci lu teew aw ci ni mu waxee ci maadi rek lay kafaara ci ñàkk war la jéggalu yàlla moo waaye ci lu teewal lu ñëw kafaara daf ci war ما كون ونيت لاخو يمينيت في المستقبل سي لو نيو كفاره داف سي وار لو تيو نك كفاره ورسي غمو سي لو تيو لو تيو كفاره دنا سي وار ولا دي وار واي موم داف جاب نا داف سي وار والمتاب توب اي قد يجب دنا وار والمتاب توب قد يجب دنا وار ولا وانا لاخو يمينو خموس فلا تكفر بالكفاره والمتاب توب رك قد يجب ما سي وار بو اجو سي لو باسي يعني أنه لمم نمم من حلف كجن أنه لمم لا خير جناك زيدا زيد وكان منك يمين ونجم بالله تعالى هو تفك مم شاكون تفسك أو متحقون ولا مهور كان دم لك نياك زيك زيد فين هناك مم تجيب دعوة عليه اسمه اتوب تشوب مما ترى ما تلم تون لأن يمين ونحن نجم وقعت تابنا غموسا دي nga ñu xamus waxuma min kabaari zunu bi muy bokk si bàkkaari màgg yi dafa gëñ ne fekk dafay sigi sàkk wala wóor na ko daje wut ak moom na tuub rek bu dee xaal la wala mustaqbali war naa tuub teewul war naa kafaar waaye war naa tuub ndax wax na lu amut ka xaali ni ka aji waxoo moom al yahudi yahud la masalan ci misaal in faala nen def na ache mbir alladi bi nga xam ne xat faala def na ko su gañee ne wallaay su ma duggee kër nangam yahud laa wal nasaraan la dugg kër nangam taxul mu nekk yahud taxul mu nekk nasaraan waaye na tuub nag ci loolu mu wax ndax loolu bon na lool التشبيه misaal mi li ifaadatil hukmi pour jëriñ atte rek yaa ngi ne mos na mu ana man qaala ku wax isa karamtu bu mu waxee zaydan zaydi aw daxaltu wala mu dugg ma dugg daaroo këram aw labistu wala bu ma soree xaasa saw bi bi la yére aw akaltu wala bu ma lekkee xaasa taam bi la ñam mu ne bu waxee ne bu defee loolu foofu moom yahudin yahud la aw nasraanin wala nasraan la aw ala xeyri diin islaami wala mu ngi ci lu dul diinal islaam su ma baax na topp gannaaw loolu kàlla ma waxee naag zaydan zaydi aw daxaloolu mu dugg daaroo këram aw labisa wala mu sol yéreem far aw akala wala mu lekk sax ñamam wala mu lekk ñam woowu dégg nga kooku misal saahiba yamin ni comme borom gëñ alxamus boo xam ne xamus la rek kooku moo koo xam ne dafa gëñ gëñ koo xam ne moo tay te du dëgg ñooy am fi àndoo ci ne loolu laata mu du ko ci war al kafaara duñ kafaara wala tan foofu kafaara du ko jëriñ infant laa def na ko ndax waru ko ba nekk alwaajibu la war a an yastaxfirullah mu jégalu yàlla taala kawe na way taqarabu mu jegeñ lu ci yàlla bi ma sataan ci lépp lu mu man min irqin fi goreel jaam wa sadaqatin wala sarax aw soomin wala woor wa azali maanaa xawli mooy maanaa waxam du ma in faala nem def na achel mbir allazi mi nga nangam yahud la wala moo ci war ay in faala noonu def nekkoon moom tane an bañ min fi'li ci def ko su defee loolu nga wax ne loolu nga nga xam ne wax na ne du ko def su ko defee yow su ko defee tuub rek ci wax baana xaw lii gannaaw bu mu waxee woo moom al yahudi yahud la bu ko defee bu ma sha boo wala na niroog yahud ci maanaam maanaam bu ko defee daal du jullit su defee loolu tax ko nekk kéeféer ba léegi jullit la waaye tuub rek moom moo ci war in uridu illa islah mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib